bi ma gisee information xaaral ma jël kon Jibril Waar bu fekkee dina leer wóoruma sax asalaamaaleykum est-ce que est-ce que est-ce que dina leer allo. waaw mën na maître Ba. waaw maître maître Jibril Waar. waaw waaw maa bëggoon intervenir dans le. waaw yaa ngi ci defoon Modou Modou Modou Modou Awa maa demoon naa maa man maa maa bëggoon intervenir quand même quoi. bien sûr Maodo moo jiitu sànq moo ma jiitu doon euh, tàmbali plateau spécial bi ma wuutu ko xam naa dina ñëwaat ci kanam mais ba tey rek comme euh, yaa ngi en direct mën nga jàllale li nga xamante ni moom mooy message. waaw ñu ngi lay dégg. waaw man euh, wax ci li nga xam ne mooy fii jot xew daal. ñu ngi lay déglu waaw. waaw vraiment di masawu coono di bokk ak métit beeg naqar bi. di dal euh, Adja Maïmouna Ndour. d' accord. parce que man dem ba une heure et ci guddi maa ngi doon wax ak Modou Awa ba une heure et du matin ma sama soxna bi ma waxee loolu xibaar bi suba ma ne xool xam naa kon guddee na ba mbir mi di am. Hmm. kon vraiment je condamne vraiment avec énergie. Hmm. Euh, cet acte ignoble, inqualifiable, c'est même une tentative d'assassinat. Bien sûr, bien sûr. Ça, il ne faut pas que vraiment être tendre avec qui se passe, c'est un acte bon, mûrement réfléchi et prémédité. Mhm. Et ça, c'est tentative de mort. Mhm. Et là, vraiment, euh, ça nous relance le problème aujourd'hui de la sécurité des personnes. Et Maïmoulendou, une femme très brave et qui a toujours eu à faire face à des menaces, mais ça ne l'a jamais empêché de faire sa mission. Mhm. Donc vraiment, je crois que c'est une brave dame. Et je me joins à sa famille et à vous aussi, ça première famille et tout de la presse. Bien sûr. Pour dénoncer cet acte et ne pas douter en tout cas que justice se donc vraiment di leen masawu coono. Mhm. ci mbir bi nga xam ne moo dal suñu jigéen Adja Maïmouna Ndour. bi mhm. nga xam ne lépp luy mu laaj di liggéey mi ngi koy def waaw ci jub la ko def ci dëggal mhm. ci ragal yàlla nga ak ñeme parce que ñeme moom looy def rek te àndu ci rek. lu am solo. kon wax dëgg yàlla daal euh, maa ngi koy seet seen njabootam nga jàngi ma sama kàddu ci adduna bi yëpp ne daal lii am. Mhm. Euh, du lu war a am ci senegal senegal moomu loolu daal. d'accord loolu daal laa bëggoon wax vraiment daal. di mhm. leen encouragé leen di ngeen taxaw ngeen taxaw ko. d'accord dëgg yàlla yéen ñëpp ngeen yemale. d'accord loolu itam lu am solo la. waaw mhm. lu am solo la. koor boo mën a gis dina am ñu baax ak ñoo am di ko doxal nu mu ko waree. di ngeen wax dëgg yàlla gàcce ngalaama te fi ngeen taxaw taxaw leen ci rek. d'accord mais wala laaj gi nga a laaj ci jëkk ak ak ci yar loolu la ñuy xamee. d'accord vraiment lu laa bëggoon wax. di ko métti lu wax dëgg yàlla di ko métti lu di ko ah, jërëjëf. kon mu nekkoon maître Djibril au téléphone euh, dégg nañu kàddu yi kàddu yi rafet na di la gërëm bu baax euh, donc maître Djibril War jiite maison euh, de école du parti bu APR ah nekk nekkoon honorable député kon.